mbokk yi Ada Boy Baol ngi noonu Franc a ngi noonu ñoo ci demi-finale poids lourd yi ngi fëgg fëgg na bëtu ooma Ada Boy Baol am na lu muy ñaan di ko ko demi-finale baa ngi noonu Général Malika Talfa Ada Boy Baol ñaan na am na lu muy jat moom Ada Boy Baol abit baa ngi wax ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ laaj Ada Boy Baol laaj na Franc arbitre bi na Ada Boy Baol Franc demi-finale poids lourd mise bi di 1 million 3 millions 600 Boy Baol Ada Boy Baol Général Malika boog ngeen ju ngeen jégal ma Ada Boy Baol Franc Ada Boy Baol Franc takk na ko ci wet gi Franc takk na ko ci wet gi Franc takk na ko ci wet gi moo koy mbot eh Franc Franc bul def loolu Franc bul def loolu moo ngi koy takk Franc Ada Boy Baol Franc daan na ko daan na ko daan na ko Boy Baol Franc daan na doole Franc daan na Ada Boy Baol Franc daan na Ada Boy Baol